xamante ni sax def nañu ay jéego ngir rek xeex gëllëgoose gi nga xam ne am na ci askan wi ci seen wàllum am-am waaye terewul fii ci dendu Afrique rawatina réew yiy féete ci sayal ñoo ngi jànkoonteel ak ba tey bi la jafe-jafe ñu néew ci askan wi ñoom ñoo yor koomu réew yi ña sa ëpp moom. mënuñoo jot si lu ni mel lii bokk na si li tax dendu Afrique di jànkoonte ki jafe-jafe bokk na si ñàkkub kaaraange gi fi gën a am doole ONG Oxfam taxaw tey jii moo ki partenaire am bëgg am rek lu saafara mbir mi. Afrique de l'Ouest moom suñu gouvernement yi ñoo xeexul trop inégalité pourtant am na ay ay ay jumtuwaay ay instruments yu nga xamante ni ñoom dañ ko signé mais dañu bàyyiwul trop xel ci euh, mbir bi nga xamante ni. du nekk koom amul mais koom bi ni ñu ko wasaaree wala ni ñu ko séddalee moo xaw a des. gëllëgoo see googee ñoo ngi ko gën a nemmeeku nag si diggante góor ñekk jigéen ñi fi si dendu Afrique jigéen ñi néew nañu doole lool dañ leen a beddi si ay mbir yu bëree bëri. lorsqu'on regarde parmi les pauvres. bu ñu wax rek wàllum ñàkk dañuy gis ne jigéen ñi ñoo gën ñàkk ko góor ñi exemple bi may jox rek par rapport ak li nga xam ne mooy am ci suuf si jigéen ñi ay jafe-jafe yu dëgg sax la ñuy euh, jànkoonteel ci wàll woowu. si gis-gisu ñi teewe bi leen daje jot nañu laa xaale soxna yi. ak ndaw ñi ci politique yi nga xam ne dañ koy tëddal si dendu Afrique. et notre besoin aujourd'hui en tant que jeune en tant que. tey sunu soxla mooy ñu dégluñu bu baax ñun jigéen yi. si lépp li nga xamante ne dañ koy def lu jëm rek su mën a sukkali sunu réew. socio-économique de nos pays. fexe it ba soqali koomu gox yax goxaan yi ba askan wi yëpp gis ci seen bopp nekk na ponk bu jàmp. kon dañoo war a wax ni daal développement territorial loole nekk na exigence ci justice sociale tamit ci justice ci wàllum koom ak ci wàllum alam bi ci lépp lu nga xam ne tamit wàllum investissement la. lii di jotaay boo xam ne Oxfam ak i naataangoo mi bëgg nañ ci boole képp ku ci war a bokk ñu fas ne toog sottante xalaat. ngir rek am ay pexe yoo xam ne daana jeexal gëllëgoo si gi nga xam ne ne mekkoon nañ ko si askan wi si dendu